motax tax ba ñu di leen ziara ndax seen ànd gi ñu ànd ak yalla yonent ci ci ci ala ñoom do taxadi taxawati safara la ci ziara leen safara la ci raji xol xol yi ne dana xoomaat na tawé ñu ñu ngi xoomaate ñu la ñu koy namm mu ne jangal quran ak julli guddi ak ziara lu ci yalla yi ziyaara nag moo xam wali dund la moo xam wali yu dee la waaye ziyaara wali yu dund moo ëpp njariñ ziyaara wali yu dee ndax wali yu dee falleeku na moom ci liggéeyal yàlla léegi ci darajay yàlla wali yu dund moom ba tey ni yàlla la mi yàlla moo tax ba ziyaara wali yu dund moo gën ziyaara ba melo wali soo amul wali mu dund woo siyaara nag waaw nga siyaara bàmmeelab wali yi waaye bu njëkk bi moo ëpp ndax kaa moom ko lekk na de loolu liggéeyal yàlla suratul Israa saara la ñaan makk yetum ko jël makka de illaa wa in kaadu la yaftinunaka la ayaati samaani mi'atun téeméer la wa asru ayatin ak fukki wa ihda asrata aw ihda asrata wala kenn ak fukki ayatin ji kaateef

gannaaw boo xamee ne mu ngi tëdd ci néeg ummu haani jigéenam Seydina Aliyu néeg ummu haani ci xaram ja bokkoon te xaram lépp ci masjidul xaram la bokk moo tax ne ñu ngi ci masjidul xaram ba yonent tëddee diggante ñaari góor nelaw gannaaw bu mu nelawee la Jibril ñëw xee ko rek ba yonent bi xeewoo ne sama mbokk Jibril mu ne waaw looy dox léegi mu ne ko sa borom ne ma yóbbu la ci moom de ci teraanga yoo xam ne yàlla mosu ko taral benn jaam te dootu ko taral ci mukk benn jaam Muhammad dem tey ba yàlla di ko xool muy wax ngay dégg mu ne waaw yonent daal di dem ca sam-sam daal di jàpp sallallahu alayhi wa ñëw jibril xotti xol ba junjën jasaatu si xol sa rek mu xotteeku waaw mu raxas xol ba ak ndoxam sam-sam mu ne indil ko daaba daaba ju bàyyi ko ci melax moo tax ñu di ko wax alburax ni melax lay mel xatee ni melax la gaawee waaye mu ñëw ci melaw bax la ngir parce que guddi mën naa am ñu foog ne xay lay dox pour ñu xamal ko ne gawar gi gawar ak jàmm la motax ini ñu indi ko ci nelaw bax ba ba yonent bëgge war jibril teyel ko dagal ba alburax ne cëpp cëpp cëpp jibril ne al burah muhammad ngay def Ya yalla ma sa bind jambu gëna tedd muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, al burah xeras be ñak ñak wo turu waaw mooy gëtt ak warde gi warde bu werte xetag alburax la warde bu wax bi mom xatak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ne yëngatuwuma lu may bëgg rek mu warlul ma ne dana ma ramu danaa nekk ci war waaye ci aljana be jibril ne ko alburaaxa ngo bët bi mooy wewi de fu bët ba dal rek wewa dal di fa dal ne def nii ngëp ci dëgën wi dëgën wi fas wa ni sant yi def yéen fekke wu ba ni ñuy war fas sant yi dañu jafandu ci dëggali fas yi di dawandoo fas yi topp ci waa sang bi noonu la jibril def yonentu war alburaax jibril la nga mu ci dëggalee daw topp ca ba nga xamee ne naawe nañ ca makka daldi dal ca bayti maqdis rek alburaax ne yonentu bi wàqil mu wàqi gis jaaru mu ne ko jaaru bii de yonentu yi daa xeew seeni daa ba xeew ko ji yonent xew da baam dugg ca jàkka ja fekk na mboolem yonent yépp alfaka xatim yi téeméeri junne ñaar fukki junne yonent junne ñëpp a ngi satt di ko nekk pour mu jiite leen julli de yonent jiite leen julli ñaar raka sëlmal ne foofa nag ma mar mar woo xam ne mësuma ko mar mukk jibril dal di indi ñetti ndab bi ñu def sangara di def ndox di def soow yonent ni tànn soow ma naan mu ne muhammad tànn na gëm yàlla boo naanoon sàngara si saqeet danañ murtad mu nan mom yonente ba sallallahu alayhi wasallam sallam ba noppi dal di al alburaax rek wala ni indil ko mihraj li gëna a al alburaax la rañane musa ne ko ma ngi lay ya yóbbante ngal Muhammad yow mi mëna dem ba jëf ci dara nu Moussa so demee jiin ma fa benn rakka di tax ñi ñuy tar tay ba yonente nee na ba si dërëg Moussa mu julli benn raka tegal ca boppam beneen muy ñaar ah yàlla ne ko defaatal benn nag ci benn la la santoon loolu tax mu loolu way ni safa wiitar gannaaw bu ñu war a lay julli juróom alburaax yonent dal di war alburaax bët ba dal ci asamaan bi jëkk weewa dal ca jibril fëgg ko kana jibril waa ndat muhammad waaw yoni nañ ko yoni nañ ko ñu hubbi mu ne foofa la fekk yonent yàlla aadama bàyyi mbindeef yi def mu nuyu ko mu tatagal ko ñaanal ko yiw marhaban doom ji yiw ji marhaban yonent bu yiw bi ba mu mu gis aadama mu ne bu xoolee ci wetu ndeyjooram ree bu xoolee ci wetu càmmoñam jooy bu ne loolu nag mu ne roori doomam yi lay gis su gisee bu xoolee ci ndeyjooram gis roori doomam yi nga xam ne dañoo weddi fa soo dem safara loolu la su xoolee ci ndeyjooram gis roori doomam yi nga xam ne dañoo gëm fa soo dem aljanna loolu lay ree su xoolee ci càmmooy gis loolooy doomam yi nga xam ne dañoo weddi ba soo dem safara loolooy jooy alburaax bët ba dal ci asamaani ñaareel yow dal fa jibril fëgg ko kana jibril ko ànd muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu bil ko foofu la fekk ñaari doomi nday tax yi yahya ak isa mu nuyu leen ñu tatagal ko ñaar ko yu alburaax bët ba dal ci asamaani ñetteel yow dal fa jibril fëgg ko kana jibril ba ànd muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu ubbi foofa la fekk yonente yàlla Yuusufa fekk ñu jox ko genn taar rek ba alburaax bët ba dal ca asamaan yonente yàlla rewa dal fa Jibril fëgg kooku kana Jibril ko ànd ak Muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu ubbi la fekk yonente yàlla Idris ak yàlla wax naa wa rafa'naahu makaanan aliyyan nuyu ko mu tatagal ko ñaanal ko ñu alburaax bët ba dal ca asamaan juróomeel rewa dal fa Jibril fëgg kooku kana Jibril ko ànd ak Muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñu ubbi foofu la fekk ko mu tatagal ko ñaanal albura bët-bëtal ci asamaan juróom benneel waawa daal fa jibril fëgg ko kana jibril fa andat muhammad waaw yónni nañ ko yónni nañ ko ñëw bi foofu la fekk yonent yàlla Muusa mu nuyu ko mu tatagal ko ñaanal ko ba mu wéyee mu jooy yàlla gënal nga ko ci sama kaw rek gënal nga ko ci sama kaw mer de waaw kawar yi bënn bu bee mbaxana yi waaw jibril ne kii soo kana jibril ne ko yonent ne kii soo kana jibril ne ko ibnu Imrana ku mu la mel dafa alburax bat ba dal ci asamaan juróom ñaareel wewa dal fa jibril fa ko kana jibril ko andal muhammad wa yeen ñu ko yeen ñu ko ñu bi mu fekk fa yeen yàlla ibrahima wa mu ñu ko mu tagal ko ñaanal ko marhaban doom ji hiw ji marhaban yeen ñu hiw ji ibrahim ak adam rek ñoko tudde doom wa ci la ñaan ñu ci def ñepp mbokk lañ koy wax wa ndax ñoo ñoom seen doom la adam adama mooy bàyyi mbindeef yëpp ibrahima nag waaw mooy bàyyi yonante yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mu dem ci sidratul muntaha nak mu ne waaw meññal yaa nga waaw kaleeri xajara waaw xob yaa nga waaw tol ni waaw noppi ñay de naa ko def nag mu jibril na ko jàmm jàmm man fii laa a yem kenn mën da bàyyi ko suuf yéeg ba weesu fii kenn mën da bàyyi ko kaw itam wàcc ba weesu fii fii mooy day waay bi waaw jàmm ak jàmm na nga dëgër nag na nga xam sa borom danga war a na nga dëgër yonent ne ko waa tukki mu tiise nii àndandoo dana ci wàcc àndandoom mu ne ko juróom-ñaar téeméeri junne téye ngi ci kanam yoo xam ne bu ma leen jege woon juróom-ñaar fukki junne téye leer a ngi ci kanam yoo xam ne bu ma ci jege mu lakk ma ba mel ni cirkoor eh, boo de ci sa bët safara de man mënu maa dem fii nga fii laa yem foofu la yonent fitti nag di wéy sallallahu alayhi wa sallam ba jàll juróom-ñaar fukki junne téye yooyu ñëpp lu nekk mbindeef yi nag gis na ko dem na arasa kursi dem na ba weesu kaw dañ ci mustawan mustawan soo sa àggee kaw suuf amatul xam nga fi ñu ne ñu ne ci suuf la la féete ñu kaw da nga dem ci mbindee yi nag ba àgg foo xam ne kaw suuf amul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wéy day wéetaay jàpp ko ak mbasar yeeg kenn du tàggoo moom yàlla daal di bind kaddu Babacar Siddiq kaddu Omar ibn Khattab ñuy wax ci kanam muy dégg ah ndaka gaa ñi jiitu si nañu ma fii gaa ñi dañu for for ak suñu foofu yonent wéy nag ba ca téye yàlla بنيوا وأوتي على بدر التحيات لله الزكيات لله والصلوات والطيبات وأوتي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته yonent waxaat salaam alayna wa ala ibadillahi salihin yàlla feeñu ko nag ci melo waxambaane wa doyam ne ne wax na ma laaj na ma mënu maa tontu mu teg tënkam la waaw ci sama waaw dënn bi ba ma yëg ca daay ba waaw ci sama diggante jogare yi rek mu jox ma xam-xam way jëkk way ma ji ma dal di tontu yonent tontu lam ko laaj yépp foofu la ko yalla waral nak julli yi def ko muy juróom fukki julli may ko nak ay may lepp ci ragal rañaan yalla yonent def ko nëbb waxtaane wu ko mu ne buñu mu dellu fee ba ci asamaani juróom benel ji ci gënoon a tab ci man ba may dem mu ne mo gëna a baax ci man bu ma ñu ko mu ne Moussa ibn Imran bi mu mu ne ko na nga defal sa borom mu ne sa borom teral na ma waral na ci sama xet ñu julli ba bi seet juróom fukki julli mu ne ko duñ ko man dellul ci sa borom mu wañi ko mu delu ci borom ba yalla ne ko wañi na ci juroom mu del ci musa ne ko duñ ko man delu ñu wañi ko mu ne dañu ma di bagante digante yalla ak musa yalla di ci wañi par juroom juroom bam def juroom juróomi julli mu ne Muhammad waral na ci sa xeet juróom fukki julli legi wañi na len ko bam def juroom juróomi julli dogaloon naa ne sa xeet benn bu def ma japp ko muy fukk bon juroom julli su ko yalla jàppee ben bu ne di fukk muy lan muy juroom fukki julli ba tey yàlla ne ma ngi badalul qawl la daya man sama wax duñ ko soppali rek te de ba legi ñun juroom julli rek lañu ñuy julli waaye juróom fukki julli la fay yonent wàcc nag sallallahu alayhi wa sallam dellu si ñu ne loolu yëpp rañaanu benn saa la ñu ne matut saa ñu ne benn saaniye la benn saaniye mooy xaaj minute buñ xaaj juróom benn fukki xaaj waaye li dëggal ne matut sax loolu yonent ba mu waree alburaax bay tëb di rañaan bañ laayam seen na banqaasab garab ba muy dem dem na ba dellu fi yëngatu bi bànqaas bi doon yëngatu ci fel bi ñu ko feroon dañu ñu ne fa mu di nelaw xam nga jëmmi doomu aadama bu tëggee ci tëddee ci barab ba mu yàgg tawal ba ci kurut foofa dafa dafay tàng tuuti dellu si na fekk fi mu tëddoon ba jóge fi dem rañaani ba tey ni ko yaramam tàngaloon tàngaay ba dañu ko rañaan moomu mooy rañaanu mag mi nga xam ne yonent rañaan na ko yonent nag yàlla rañaan na ñett fukki yoon ak ñett yoo xam yi jëwante la waaw yi ci roxam rek la waaw bii nag mooy rañaan mi nga xam ne dem naag yaramam lépp dara def fi dem dellu fi moom la bur di wax ne subhaana alladi tudd na ma sell ak buur bi nga xam ne asra rañaane na mu bi abdi ci jaamam ki muhammad sallallahu alayhi wa sallam tudd naa sell ak yàlla mi nga xam ne moo rañaane jaamam bi ki muhammad yàlla wéet na jëf ja ci boppam kon amatul lan waxu ne yonent dafa rañaan waxu ne dafa dox yàlla la wax ne moo ko demee yàlla nag moom dara lottalu ko jëf jëbi ci doole Muhammad waaw ci ndimbalal borom bi la waxut bi nabi yi bi abdi la wax ndax su ne woon bi nabi yi mën naa def tafsir ñu defe ne bi bu na yi la ñu xeetam réer naka nasaara réere def ne di doomu yàlla moo tax de waaw waxut nabi yu fii abdu la wax baatam abdu mooy tudd yàlla takkal yonent sallallahu alayhi wa ci maqaamaam yi gën a màgg maqaama yonent xoote jëm ci yàlla moo ci gën a màgg way ne wala maqaama abdoulaye yado safa abdoulaye la ko fa tuddee ak waxtu bi ñu wàccee alquran ci moom alhamdulilahi ladi ansala ala habdi kitaaba habdu la ko tuddee foofa ak guddi gën ko rañaane nag waaw benn jandee ko rek mu dem ci bayti maqadis dem ci asamaan yi juróom yaar demal rasa kortio mustawan demal janna safara dellu si aat foofu itam habdu la ko yàlla tuddee lu tax maqaama ba boo diya mooy maqaama bi yonent bi gën a kawe moo tax muy wax ne ana sayyidu wala di aadama wala faxra maay sangab doomi aadama yëpp waaye loolu du sama tiitar luy tiitaram dëgg mooy nekkam ngam nekk di jaamu yàlla lu tax bu nekkee di sang balaa nekk sangam nekk ci mbindeef yi waaye su nekkee ca péyeb yàlla jaam lay doon waxtu wam nekkee ca péyeb yàlla ba nag booba la gën a kawe booba la ëpp tiitar ci waxtu bu nekkee ci mbindeef de moo tax mu ne puukareem ci njaam la waaye duut ci ak cënga de yàlla mi nga xam ne rañaane na jaamam boobu indi na baa ngir ma xamam suufeel boppam ci la toll ndax may gi na rëy goo xam ne pour bañ xeetam réer naka nasaara réere def ko mu di yàlla waaw moo tax ne mu tudde ko jaam indi baab jar jar ko de lay la ci guddi man ko rañane nak ci guddi guddi gi nakiraal nañ ko ngir nga xamne ab xaj la ci guddi rek du guddi gi lepp xaj bu tuti rek ci guddi ci la rañane mi tabbi lu tax defuñ ko bëccëg mu fess ndax kenn bañ ko mëna wéddi def nañ ko guddi ndax deugal kat yi dëggal am yoolab deugal weddi kadi weddi ñoom waaw yàlla xalak leen de ak itam guddi mooy waxtu jokkoo diggante soppe de ñu soppante dëgg waaw waxtu guddi la ñuy jokkoo de moo tax yàlla nekk ba guddi waaw mu rañaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw naka soppe bu xam ne ma ngay dem di see rañaan di seeti ab soppem ci waaw digg guddi de minal masjid bi di ko ca jàkka ja alxaraami jëri ñu xormaan fii makka ilal masjid di jëm ci jàkka ja lax saa jëri ay sori waaw yàlla rañaane ko nag mu joge ci waaw jàkkaay makka ja jëm ca jàkkaay bayti maqadis de jàkkaay makka mooy kaaba gi ba yàlla wàccee aadama mu ñëw ci suuf aadama jooy jooy jooy jooy ñeen fukki fan ne yàlla yaa ngi ma génne dootuma mën a wër ci araf gisatuma sa jaam nga xam ne saa yu ne ñu ngi lay sabbaal di la tudd xana ma nekk ci àll boo xam ne kenn du fa tudd yàlla yàlla daal di ko wàcceel bayti maamuur muy kaaba gi ne ko del wër kaaba gi de say doom képp ku ci mooy su ñëwee wër néeg bii rek ma baal ko adama haj na ñeen fukki yoon di bàyyi ko hind di dem makka ñu ne yonent lu mu doon war mu ne booba ana daaba ji muy war aadama benn daaba atanu ko waa te booba war waaye amul waa dafa dafa dox ñeen fukki ajam yëpp dafa doxal tànkam booba nag ajarul aswad yàlla nga ko jële ci yaa xóoti aljanna teg ko ci néeg ba muy leeral ba fi xaram gi am ci wàll yëpp moo tax de fu leer ga daa àgg ci fa agsi rek xarmal moo tax ñuy xarmal ba tey ci mi xëy bakkaati doomu aadama yi moo far leer googu ba ñuulal ko léegi waaye moo gënoon a weex meew moom dañu dañu xajal la soot kaaba googu nag yonent bi foofu la rañaane jëm fan jëm bayti maqadise ci iliya foofale yàlla dekkal yonent yëpp mu jiite leen de àll bi masjidul aqsa bi nga ne barak naa barkeel nanu xawla woo ko yeewoon ci meññet li nu riyaayo ngir nanu wan ko min ayatina ci kaawteef sunu waaw ndax ñu yaa wan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lenn ci sunuy kaawteef ina wan a ko moom o moom sama moom aji dëgg albasir moom di aji gise lu tax ñu def min te min lenn lay tegtale te ci ibrahim ñu ne wa kadalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi defuñ ca min muhammad ñu def ci min te muhammad moo maqama ibrahima seetal bu baax wute gi rek ibrahima malakuta samawati wal ardi lañ ko wan muhammad nag luñ ko wan ayatina kaawte fi yàlla ci boppam kaawte fi alaamu dayo moo tax fokk min dugg ci waaye terewut muhammad maqama ibrahima rek ci ñu won malakuti asamaan ak ci ñu won fi yàlla ci boppam ni loowu de ina naka moom woo moom sam moom waa ji al basir Musa Musa al kitaaba tawreet yonent yalla Musa jox na ko tawreet wajaar tan def hudan muy aji jubal li bani israila ci bani israila de allah tattaxisoo bu leen jàppati min dooni kurun man wakki leen ku ñuy jaay mbir jëm ci moom de zuriyata man xamal naa ey yéen sëti ñenu waral leen maa nooyin ñu ànd ak nooyin ca ga ey yéen sëti doom yi nga xam ne maa leen xeboon ca gaal ak yonent yàlla nooyin ina woon naka moom no kaana nekkoon na mu kaana masuma dañ abdan di jaam sakkoran bu di santaakoon boromam de yonent yàlla noonu jaam bu bëri cant yàlla la woon ci mbolé mbidam moo motax ñu tudde ko yaskuru wa qabayna waynanu ila bani israila jëm ci bani israila ci kitab ci tawrat la tufsiduna wala da ngeen yaq fi dara ci suuf si saam maratay ni bani israila wa xeet gu ban da ngeen yaq lu bari ci sam ci ma yalla yaari yoon da ngeen koy aqaadina wala tahluna da ngeen kowe da ngeen daw wala wona daw kabiran gu ji magare magre fa iza jaa dem dikna wadu lew ma dalab kenn ci ñoom baax naa nu fal na aleykum ci yéen bari na e jaam danaa yi ñaan nu uli bàtti di war maay xare e waaw yu tat fa jaasoo dañu wàcc ci laala diyaari ji digg kër ya de taray leen jàpp leen wakkaana tam nekk waa dan dibdeel ma foolan bu di buñ def de def na yàq gu jëkk nga bañ rayee zakariya zakariya yonentab yàlla ñu xëy rek ne fop ñu roy ko zakariya daw ñu topp ko ak jaasi waaw bam daw ba ca digg àll ba mu romb garab waaw garab ga xar ne ko ñëwal malaaka la waaw mu daal di nangu waaw garab ga xar mu dugg ca biir garab ga keppaat mel na meloon ñii daw baag si fa waaw gis fekk iblis génne na dara ci mbubbam waaw mu feeñ ca bitti de waaw ñu ne Sakariya ci garab bii la dugg mbubbam maa ngi nii ñu daal di fab ci lam nangoo ko ci lu yàlla moo tax yàlla wàcc ko bañ bañ rey ko ñu daal di teg ci ca garab ga gis ci ba jot ko waaw muy yooxu ñu gis ci gis ci ba dagg ko ñaari dëgg waaw moom yonent yàlla Sakariya noonu lañ ko reyee yàlla daal di xiit ñoom jaaloota jaaloota ñoom rey ñoom ñëpp jàpp seen doom yi def leen rappal jàkkee bayti maqadis waa mel ni dëkk mosu faa nekk gannaaw ba nag bañ tuubee su ma radat naa topp lu ñee leen alkarata nguur ga alayhim ci ñoom gannaaw téeméeri at nag yàlla daal di daaw daawuda mu xeex ak jaaloota daawuda rey waaw jaaloota waaw bani israila not xamaali xatu yo ñu delu delu ci delu dina la bayti maqdis de delu fay na kon wa am dat na ko mi tan tëbb de am walina ay doom wa bani na doom yi gor wa jaal na ko mi tan def leen ak fara ngeen diggan jëbëri na fi ran ci jidde ñu ci leen ñu faqati ñom bani israël ba gën a bëree ci ci àddina dañ wax leen ne ina ahsantum ndem xéenal ngeen ci top ahsantum ngeen xéenal de am ci ci ñaaraay bopp seen ndax yene jël seenam ab yoon rek wayin asaatum ndem ñaawal ngeen wala ñaawal ngeen farak fere fay fa jaa ndem dikk na waadu laaxirati doylab kenn ci waaw yàq doylab kenn ci doylab yoon wu mujj wa nag li yesoo ngir ngir dekkal leen ngir nañu jàqaloo wu jookum ay kanam seen ci ray ak ak njafel de wali yadxulu ak ngir nañu xarafati ñoom noonu ya masjida jàkka je waaw kama daxalu naka ñu rappale woon ko wala maratin ci njël benn yoon de kama daxalu naka ñu xarafe ko to rappal ko jëjël benn ak yoon awala maratin ci jëjël benn ak yoon wala yu tabiroo ak ngeen nañu xalak maalaw waaw la ñu not tot biran ak xalak def ñu yàqati yoonu ñaareel rey yaxya yaxya doomi sakariya maaga di seenam yonantu moom it ñu rey ko jéem nañ ko rey yàlla sañe ko ñu ñu ñu neexal as ndaw nee na ko posone bu ko reyee buur bi rey yaxyaa moom dana ko denc ndaw soosu moo moo leen dimbale bañ rey yaxyaa bañ reyee yaxyaa deret ja yoll ñu di ko suul ak suuf buñ suulee rek deret ja fitti ca kaw ñuy suul ba nga xam ne kuus ma gën naa kawe sax seen soraay ja dëkk ba yépp deret ja teew feer ñu bàyyi yàlla daal di xiir ci ñoom buxtu nasar mu ñëw rey leen ray ci ñoom ay juróom ñaar fukki junne jàpp seen doom yëpp def leen i jaam rappalaat bayti fa xadis doom gën a rapp rapp bu jëkk ba asa rabbukum xatta na borom seen an yarhamakum bu mu yërëmat leen gannaaw bi de gannaaw yoonu ñaaral woowu su ngeen tuubee yeen banu israila yàlla mën na leen a yërëmati ndax am beneen yoon way noottum waaye dem dellu ngeen jëm ci yàqati mat naanu dellu waaw jëm ci xalak leen de waye su ngeen yàqatee rek yàllaa ngi leen di xaar ñu dellu dellu bañ ya ba yàlla ngeen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu weddi ko bañ weddee yonent ba yàlla xiir ci ñoom yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam mu rey bani xoreysa ta daq bani nadir tëdd leen ab galak ba péncam yàlla wa jaanaatan def jaanama jaanama asiran muy ci kefir ñu ñaar wéga duñu ñu dina ala kan mën a faggu inshallah mo am ngeen ma xam ada da ci ni na ñoom hadi wa hisab ak hisab ci loolu itam leen di mëna a li nga xam di mën a xaw a hisaab xam ñaar la xatam jant bi waaw mu dale ci yun ay reer ci Decembar ñetti téeméeri bés ak juróom benn fukki bés la waaw ak juróom xatam waaw weer bi tam fukki weer ak ñaar la dale ci muharram samxaret waaw ba ci tabaski moom waaw ñetti téeméeri bés la ak juróom fukk ak ñeneen wa kulla shay'in lépp la fassalnaahu bidal na ko tafsir ak bidal de amul dara loo xam ne jaam yi danañ ko xaajo lu mooy yàlla bidal na ko ci alquran rek wa kulla insaanin jëpp ak nit alfarnaaw taxale nañ ko taxeeraw téeréb jëfam si woon koy jiw doosam nit ku nekk nag mi ngi ànd ak téeréb jëfam ci loosam loo wax loo jëf raqib ak atiid raqib a ci sa mbagam lay joor atiid mi ngi ci sa mbagam càmmoy de loo def ci yiw ak loo wax raq yi mu koy bind fukk ba ci juróom-ñaar fukk ba ñaar téeméer loo def ci safaan xatib moo koy bind de te ci yërmande yàlla ja tax na raqib mooy buurab xatib ba sañ ba bind te tàggu ko de ñaawteef moom soo ko defee balaa xatib a bind tàggu raqib su ko tàggoo mu ne ko muñal ko juróom benn saa su baloo yàlla duñ ko bind su balowul yàlla nag ñu soog koo bind benn yoon moo tax yonent dina tos ko rey ku sàggan de ay benn bennam ëpp ay fukk fukkam de téere boobu nag mu ngi ci loosu ku nekk si on xiin ci loosam de lépp loo xam ne wax nga ko wala jëf nga ko ba bagay dee ñu ngi ko bind rek bu pencam yàlla nag wala ko ñu dara mu génne la ñaan ko yomal xiyaamati ca pencam yàlla kitaaban téere yàlla xaaw boobu dara mu dajeeg moom man soral mu di luñ firi de bu pencam yàlla nag ba yàlla foog ne jaam yëpp ñu daje magasin yi dañuy tijjee ko rek téere jëf yi naawal seen bopp ku ne sa téere naaw jëm si ci yow de ñii nangoo ndeyjoor texe yàlla ñu ci yàlla boole ñii nangoo càmmooy de ñii nangu ca gannaaw ci gannaaw iqra jàngal kitaabaka téere sa dafa doy na bi nafsika ci bakkan sa alyawma tey alayka ci yow hasiban ci ay hisaab jàngal ku nekk yaay hisaab sa bopp de yaay jàng ba ne man texe naa wala nga jàng ba ne man texe adinaa mani sadaa ku jub na mu tey na maa yahtadi naka dina mu jub li nafsi ñeel boppam ku jub boppam la jubal de ndax yoolab jubam moo koy jël bu man dalla ku réer na mu tey na ma yahtadi naka dina mu la yaawar naka noona ku réer defut ko kenn boppam la ko def ndax bàkkaatam réeram ci moom lay daanu de wala tasiru xenutit waasiratun bakkan bu dee aji bàkkaat isra oxra bakkaat ak bakkaat ak bakkan beneen jenn jëmm du bakkaat bakkaat boobu ñu teg ko keneen de duñ bindal doom a ak baayam duñ baay bakkaat ak doomam ku nekk yaay gàddu sa bakkaat ci sa loosu bopp rek wa maa kun ane kunu mu'azzibina ñu way bugal kenn attaa naa wax la ba ta ñu yónni rasulan ko ñu yónni te yàlla du xalaat mukk aw xeet lu muy ba ci ñoom ab yonent ba mu xooleen jëm ci yàlla bañ bañ mu sax leen halak de wa izaa aradna dem na mënanu an nuhlika bu nu halakat xaryatan ñoñob dëkk amarna nu digal mutrafiha wa xeewoom fa fasaqoo teñ jéem a topp yàlla fi aa ci moom faaqa tawar xale ak ñoom alxawlu ba ta mbugal ba fa damar na tan xalak leen tadmiran ak xalak de dëkk bu yàlla bëgg a xalak fay xiir waaw fay xiir way màgg dëkk ba ci mooy yàlla de waaw soo xamee ne nuur nañ ci mooy yàlla yàlla daal leen xalak de ñoom ñëpp ñu xalaku wa kam ahlak naa bëri na bu nu xalakee minal xurooni ci xeeti yooyu min baadi nooyin ca gannaaw yonent yàlla noowoon wa kafaa doy na bi rabbika ci borom sa bitti noo bi baadi ci bàkkaatu yi jaamam xabiran ci aji xam biir basiran da te yàlla lépp lu jaam bi def dara bu ko def xam na bii di ñëw fii naka mu xame bitti man kaa na ku nekk na mu yuridu dana mu na ma ci jëfam alhaji la ta àdduna ajal naa law ñeel ko fi yaa ci àdduna maana soob la nu soob li man muridu ñeel ko nu soob ak gaayaram su ma jaax naa topp nu def law ñeel ko ci àlaxira jahannama jahannama yaslaha mbir moom dana mu xaraf ko mas noonu li mu di kuñ nañi rek koo xam ne yaa ngi jëf te na ci sa jëf lu mooy àdduna rek yàlla dana la jox ci nga àdduna lam la dogalaloon su ko neexee waaye kooku moom àlaxira amu jëf jëf de jahannama rek de nat fa waroon mu di kuñ dàq magfaran bi muy kuy faral yërmande yàlla wa man araada ku nam namu laaxirata alaxira wa saatam jëf laa ñeel ko saaya jëfam jëre aji dëppoog moom woo wata moom moom ñu aji gëm la mu ulaayka ñaale gaay kaana ulaayka ñaale gaay kaana mas la dañ saa yóbbu jëf seen mas koran di luñ sant fa yàlla leen jëfi waaw soo fa nga koo xam nag ne alaxira rek ko tax di liggéey comme jëf jëf ji dëppoog alaxira mooy mu dëppoog sunna fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey takk gëm na yàlla kooku moom jëfam moom la ñu nangu fa yàlla rek balaa ñoo nangu jaamu yàlla fekk borom gëm de sartab jaamu yàlla moo di gëm yàlla su gëmee yàlla ba noppi lay fa waxee loo jëfal yàlla balaa ñoo nangu jëf itam mu dëppoog sunna fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek waaye ku sant sa jëf joo xam ne dëppoog sunna itam lu mu bari bari yàlla du la ca dara waaye ku jëf nag gëm ba noppi jëf-jëf ci dëppoo sunna kooku la yàlla yool jëfam de ku lan fépp ci ñaari kuréel yi mu ngi di dana nu jox haawlaay ñi le haawlaay ñi le mi naa taay rabbi ga ci may ak borom sa ci àdduna ñu liggéeyal alaxira loolu du leen xañ ngeen wër sa ci àdduna du tere yàlla jox leen lam leen seddoon ci àddina bi ñii liggéeyal àddina itam yàlla dana leen jox de seen wërsëg ci àddina wa ma kaana masalañ hatta warab Seydina Omar ñoom ñoo ne Bilaal ak Suhayb bu ñëw ñoo la jëkk a may ngeen ñu dugg te Abu Sufyaan a ñëwoon ci guddi Abu Sufyaan ne lii yëpp ñoo ko teg ci ndox ba yonent wootee ñu lan ko kooroñu ñu ñu jëkkoon yonent dara moo tax Omar yol teg ci suñu kaw te suñu leen xañaanee kat dara jiital ci leen Omar di jiital itam dara ñu yàlla karam moo raw fuuf yàlla na ne وللآخرة أكبر درجة أكبر تفسيرا منه لا تجعل جلدك معنا أن يجعل إلى أن يعلى خرج منه yow jaam bi bul fàttal yàlla bakkaare a tax ma dafa soo da nga mujj soo dan bi ci wàcc kenn di la dimbali rek ku fàttal yàlla bakkaare yàlla dana la wàcc te kenn di la dimbali rek wa qada digal na rabbuka baram sa allah taabu doo bu leen jàng bi ilaa yaram dara moom ñu ñëw ñu nag taraat ñaar fukki jikko ak juróom ñu ñëw ci suñ kanam fukkat ñanan sa yoo xam ne yàlla tere na ko ak fukkat benn yoo xam ne yàlla digle na ko mboole seen di ñaar fukk ak juróom ñëpp roba ji la lamboo na ko ndigal lu jëkkal angoog yàlla digal na leen bu leen jaamu kenn lu muy yàlla bokkaale wa bil leen wajib waxtaan ak topp toppal sa yaari waajur itam de borome bañ ko waajur bakkaat yëpp fàttal yàlla bokkaale moo ci gën a màgg gannaawam bañ ko waajur ci gën a màgg rek ñu bañ ko na da yàlla du wax sax bul sa waajur topp ko la wax nga xam ne xaaye na dënge ga borom na ko ba karam kenn ko ما يبلغن ndem jot nañu anda ca fi yow al kibar ak maga adu ma tan ci ñoom aw ci aw ma je jot ci ñoom ñaar wala taqul wax la ma ñaleen usinat ban usinat qasaw aha ñaan la de so xamé ne sa nday magal na ci yow wala sa bay bul mukk bul wax mukk ne ko ya bon de bul wax mukk ne ndam la xana bon saaga ko wala dóor ko rawatina mbas sax bu ko ko wax waxuma nag di ko saaga waxuma di ko dóor wala tanharhuma bul gëdd leen bul wax ak sa ndey ak sa baay di yëkkati baat ci seen kanam waxul la waxul waxal lawuma ñaa leen xawlan wax kariman bi daa ji nooy de sooy wax ak sooy wajjut na nga nooyal sa kaddu de waxtu mi nooyalal lawuma ñaa leen janaa si biri wala toroxte na nga torox lu ci seen kanam de loo rëy rëy waaw suufalal sa bopp sa kanam ay wajju laa waxee leen min rahmati ngir yërëm leen wa qul waxal rabbi yow borom sama irhamhuma yàlla nga yërëm leen kama rabbayaani naka ñu yërëmi woon ma waxtu wa ñu yaree ma saxiira mbir mi waju ndawe dee leen ñaanal yàlla itam ku julli ñaanal sa bopp te ñaanaloo sa wajur yàlla du na nga wax ne yàlla yàlla nga leen yërëm ñoom ñaar sama ndey ak sama baay naka ñu ma yarame woon te yar ma ba may ndaw rek yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam ñenante su ma ragalu doon ñu fas leneen gannaaw bi gannaaw wax ne ngeen dëggal leen ne ci ñooñ aljana lañ bokk rek jigéen joo xam ne baal na jëkkëram kanam ngir yàlla rek ba jëkkëram gërëm ko kooku aljana la jëm borom njaboot buy xëy bët bu set di kër këri pour layal njabootam lu lew kooku itam yonent na àjjana la jëm ak ku tuub tuub goo xam ne fas na yéene di dellu mukk tuub soo bàyyi ko wut jandab la dellu ca rafet dellu ca enaat ko rate woon kooku it ñu àjjana la bokk ak ku baaxee wàjjitam ba wàjjitam ko dem ko rek rek ñu yonent yonent na ne su ma ragalu doon ñu fas bi danaa wax ñu jikko loolu léegi wax leen ne ñooñu aljana lañ benn nit ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam màggat na ci moo koy boot moo koy sotal waaw moo koy laab moo koy lexal lépp loo xam ne daal dooñ ko defal xalel mujj na di ko defal yaayam mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man day sama yaay fay naa ko lépp lu ma ma sa defal defal naa ko ko yonent ne ko fayiloo ko te fayiloo ko sax fukkeel mu ne a ah, kay daana ma boot maa ngi koy boot daana ma lehal maa ngi koy lehal daana ma satal maa ngi koy satal daana ma wodd maa koy wodd maa koy dundal lu nekk mu ne ko yi nga wax yëpp ne yaa ngi ko koy defal moom doon na la ko defal te dafa la ko doon defal bëgg nga dund yow yaa ngi koy defal yaatam ci mu dee rek waaye daal def nga lu baax waaye mën la koo fay nag waaye saxal góorgóorlu rek saxal ci baaxee ko benn benn ci saar yooyu na ne nekk naa sama doom ñett fukki at sant ma ko dara xaaye uma ko dara ngir bañ rek sant ko dara mu bañ waaw léegi yàlla xalaat ko wala maa ay dara mu def ko rek léegi yàlla alal ko rek te yonent na ne bul dimbale sa doom waaw ci mu dëngale loo ne ne boo ko santee def boo ko santee mu bañ yaa ko dimbale ci bañ rek rek waaw bu demee safara yaa ko ci yóbbu rek rek waaw ak wàjji de waaw lu foor la am na ndaw loo xam ne ci jamono yonent bu am diine ba dara desul bi ñu fàq baatab seede bi mënu ko wax ñu fàq ne loog moom daawut julli ñu ne ko kenn gënu ko woon di julli daawut woor kenn gënu ko woon jaar kenn gënu ko woon di jaar daawut sarax kenn gënu ko di sarax jikko yu baax yëpp kenn rawu ko ci woon mu ne am na wajur mu a ngi dund mu ne woo leen ma ko ñu woo ne ko sa doom ji ñu ko fa laa ilaaha illallaa Muhammadu rasuulullaah mu bañ ko wax mbaa du danga ko mere mu ne dama ko mere te du ma ko baal mukk yonent ne ko looloo tax nag mën da wax baati seede bi baal ko kat soo ko baalul du ko wax te bu dee safara la jëm mu ne moom caag na dem safara waaye du ma ko baal yonent ne ko baal ko dafay dem safara mu ne na dem safara du ma ko baal yonent ne gaa ngi dem leen taxawal ma andi ma andi leen matt gaawa ñu indi matt jóor mu taal ko ba mu yànje mu ne fab leen def ci safara si yaay ji ne aa ah, ah, safara safara taxoon ma di ko hëmb juróom-ñeenti weer safara taxoon ma di ko nampal ñaareer ay yonent ne boo ko baalu safara la jëm boo nag ñu digal ko safara léegi benn yoon naa ko ba muy wax baal naa ko rek waaje ne laa ilaha illallah muhammad rasulullah kuy siyaara sa wajur tuddi alxames gannaaw timis bu fekkee da ngee woon nga ko sax daañ la bind ne ku ko doon baaxe nga kuy ñaanal sa wajur ixlaas gannaaw julli gu nekk juróom yoon juróom yoon sa ndey juróom benn yoon sa yaay ah juróom yoon sa baay yaay ngay jëkke nag xaq yi wajur yaay moo gën diis ndax moo ëmb moo nampal xamat nga ca jëlee fukki fukki yoon fukki ak lixlaas ak ñaar juróom benn nga sa nga ne may ko sama yaay bind ko ci téereb jëfam bu na nga ne may naa ko rek waaw moom amatu téereb jëf dafay daal di àgg ci moom bàyyi itam noonu loolu ku ko saxal bind ni waaw ku ku ku jokk ku ku baaxee wàjj itam nga de am na ñaar julli ji bi alxames raka bu ne fatihatul kitab ak ayatul kursi ak lixlaaf ak xulona fi yaar ku ci nekk fukk ak juróom wa ku ci nekk juróom soo noppee nga balal say wajjit fukki yoon ak juróom ku ko bind ku julli julli googu pour sa wajjit rek dinañ la bind ne aji baaxee wajjit la rabbukum borom seen ay mooy aji xam dina fi ne fa ci nekk ci xol seen de yàlla xam na ku nekk la ne ci xolam su su nëbba ci xolam ne day baax baaxee wàjjutam yàlla xam na su nëbba ci xolam ne dafa nar a danger wàjjutam itam yàlla xam na ko ba mu ko dencee ci xolam waa rawatina ba mu ko defee in takkoonu dem nekk ngeen saar yi na di way topp yàlla te indaroon naka moom yàlla kaana mosuma dañ xasoran di aji bay di la waa bi na ñeel delluwaa ko ne jëm ci moom rek su ngeen nekkee di jaam yàlla yi ñun ñu topp yàlla yàlla moom dana baal delluwaa ko ne jëm ci ñoom rek awaabu mooy ku tuub dellu ci yàlla ngir màggat yàlla ga rek su fekkee na ni xemeem la nekk fa yàlla ci yool moo tax kooku mu niib la su fekkee ni waaw ragal bugal a tax nag ragal gàcce adduna alaxira kooku kooku taayib rek la ay waam yeneen ñi nag ñoom yàlla baal na leen lépp lu fasu ci ñoom ci dëngee ci àqi wàjj te moom wa aati joxal sal qurba war a mën jegeñaale àq waa xam bam santane wéetal ko teg ca jubal wàjju boo ba tey mi ci xàqi wàjju ndax magam ganna waji nak tay jaga ñaare ñoo ca top rek ay jaga ñaare jokku len ci motta ni baax gi nga doon baax waji la bok rek wal miskin al miskin gannaaw jege ñaare miskin wabna sabileen musaafir mu di julit wala tubadir bul yàq tabdiran ak yàq nag na nga tindale te bul yàq tabdir ak misraaf wute nañ de tabdir mooy def ko furu palaasam dindale gi fam ko waroon a def defuloo ko yaa ngi ko def keneen fu dem nga daal ga ga balaa sarax see baax daal nga joxe la nga war a joxe def ko it fan ko war a def dinañ mu bët jëli na naka way yàq ñaar daanoo mosu ñoo dañ dafa war a seyaatini di bokk seytaane képp ku yàq itam kooku mbokkam seytaane la de yonent ne ibda bi nafsika suma bi man taoon da nga jëkke sa nga teg nga jaboote ñi nga xam ne yoon waroon ala seen dund sa jabar te yaari wàjji di ñàkk doom yi ndaw ba ba ñuy mën a faggu ku gën a jege nag ku gën a jege a jege ba ba ngay àgg ca dëkkandoo ya ba ba ngay àgg ci ñëpp foo dee ne dund lu bari lu ëpp mooy yàq waaye man déggewuma ko noonu daal mooy dundale ci lu dul yàlla lu mu tuuti tuuti waaye su fekkee ni ci yàlla la bu dee lépp sax yàquloo Abubakar Sadiq taxaw na joxe alalam yépp ba defewu dara su doon yàq ta waaye ko yonent sañ la seetaan lu bon te ci xel loolu lu leer la lef lu leble la su ma yëkkati woon sama alal bëgg lebal ko amul dara yen ñëpp yen ci japp ne ma bu ko lebal dula fay amul dara ku dul yalla nak suñ nangoo ne amna na nañ ne amul dara ko nag ku jox ku dul yalla lu mu tuuti tuuti yàq nga bo joxe lepp yalla itam lu bari bari yàqu la ne lebal nga ku mën fay man noonu laa dégg yàq wa kana masdara yi seytaanu seytaane kaforan di weddi yàlla kon li rabbi ci boromam de saytaane mas da dañ di weddi yàlla way maa toore banna ndem dëddëga xanum walit nit ci ya ibtiqaa rahmatin ngir sakku yermande min rabbi ka jitti ko borom sa tarjoa jo da nga yaakaar su fekkee laajkat bi ñëw na nag te fekk xamagu la loo ko jox waaye yaa ngi yaakaar ne da nga xam loo ko jox foqul waxal la um ñu ne leen xawlan wax may xaxne boo na nga ko dig ne ko amaguma lu la jox waaye danaa la jox saa yu ma ma la jox wala tañal bul def yaddaka loxo fa maxloolatan mu di luñ dàq ilaa onuqi sa jëm ci loos sa wala tabsata bul talal ko kulal bas jëppat talal ba taqora sa loxo da nga dellu maloo man dikkuñ dara nekkut ci yow de bul talal sa di kuñ yedd de ina rabaka naka baram sa yab su mu yaa ris xawar sëg dina ñu saal ñaan ko bu soow wayax dunu dana mu tisal wata ñaan ko soow dina wana ka moom buur kaana mosumoo dañ xabiran de wa di ci jaamam basiran de aji bokk ak bokk miskin mu tekke wala taqtuloo bu leen rey wala ay doom seen bul ji doom ba noppi rey ko xasee te illa atin ngir ragal ñàkk de yaaram dañ daa def ci ci doom ji jigéen dañ koy wacc rek ba matab jànk nga ne sa taay bi jëma damay tukki tukki waajal ko takkal ko boo naanu ñu nar fa koom daanu war sa leen way yaa guma yéen ragal ñàkk nañ moo taxoon ñu ragal doom ñu ray doomu jigéen yi ñu ne doomu jigéen daf leen di teg tere yu bëri dafa leen di mbam yu bëri ak gàcce yu bëri ray rek ci dem bu na xam lawum na sag ray seen kaanama su moo dañ am di bakkaat kabiran bu daa ji mag de te ray doomu jigéen day bakkaat gënu koo mag moo tax yonente ne ku ñu war sagal benn doom bu jigéen wala ñaar wala mu am ñaari jigéenam yar len rafetal seen ak yar nga defal len lu bax bañ te sëriñ wa ba sey ba am jëkkat ba doon wari wajib ñoo ñu dox nañu sa digënde sa xara ko ku def loolu doo dem safara mukk rek wala taqrabu bu leen jegeñ ci naa njaaloo dina naka mom kaana suma dañ waaye sa tande aji ñaaw wa sa banamu mu ci yoon de bu len jege ñaaro waxu sax bu len ñaaro bu len ko jégué ndax mom mu ya jitu rek ma yalla la waaw jëccaaleeg bombanteeg foonan sa gaar ba bëgg a àgg ca njaaro njaaro nag mooy laal payam jigéen joo takkut moomuloo ko de mu ne lu ñaaw la yoon wu bon la te yàlla gaddul na aji njaaroo juróom benn jikko yàppi yaari yàppin ci àdduna yàppin ci àllaaxira ci àdduna fokk yàlla xañ ko wërsëg ba mu ñàkk fokk yàlla ñaawal ko ba mu gën a ñaaw képp ku ñaaw dana ko tegit jàngoro joo xam ne moom rek ay daj mos jëli jàngoro lolu loolu ma dina la ci ci yàlla ci alaxira nak yàlla dana ko mere waaw dana ko misal misal gi tat ba noppi lak ko ci safara rek may ci ci setané bo bëggee dal takal rek wala taqtulu mu len ray nafsa bakkan lati bakkan ma nga harama la haramal na ko yàlla illa bil haqi nga ci dëgg ray sa doom rek la waxoon na tanona bëpp bakkan dafay bakkan la xere amun katila ko rayef na ko masalan ni moy tin togn fakat jaana def na ni wadi ni ñeela ji nam ya sultan aw lay farais bi bu jégg daay fal xali ci ray ni wona sa mom taana musu mo dañ man toran di ci dimbali ben bo xame ne ray ni ray na sa mbokk may nañ la nga fay rek te yalla dina la dimbele bu leppal nak dara yi lepp waaw kenn kenn ray nañ la benn bakkan bu ne man dana ray fu kere wala taqrabu bu len jegañ mala yaddi ni jidim jidim jidim bul lekk xalali jirim illaa billati ndara ci jikko ja nga xam ne yee moom asanu moo gën a rafet atayab lu xabal ba tamu jote asib doo dëram nga waaw foo matal leen bi la xaadi jikko re boo wóoloonte yàlla ak boo wóoloonte nit ñi inal hada naka ko naree daana mosuma dañ masolan ci luñu laaj de waaw foo masal leen alkaaram natt yi saakil tum dem natt ngeen wasinoo peese leen mbir qisaasi ci baston almustaqim ba daa jib de dalika loolee xayrun moo gën waaw sanu ta moo gën a rafet tawi den ci delluwaay den wala tax fu bul toppatu maa lay saraka leen ñeela bii coomeel mun xam-xam bul toppatu loo xam ne xamuloo ko inna sama naka dégg wal basara gis wal fuaada xol kullu ulaayika képp ci yooyu de yàtt daana mosuma dañ masolan ci luñu laaj anu ci moom de waaw bul wax loo xamut bul ne dégg naa te dégguloo bul ne gis naa te gisuloo bul ne xam naa te xamula nopp bi daañu ko hisaab ëllëg bët bi danañ ko hisaab ëllëg xol bi danañ ko hisaab ëllëg wala tam si bul dox si lar ci suuf maraan ngi desiga bul dox ci suuf di daagu di turkaliku ba ngi nit tubaab di turkaliku bul def loolu de naka naka yow lan taxriqa xotti ci la lar la suuf loo rëylu rëylu loo daagu daagu waaw mën la ci suuf si dara man la ko xotti ci kawam rek ngay dox te moom jaamu yàlla la gis nga ni mu toroxlu yàlla walan tam lu ko jot ci la ak jibaala doj yettoo leen ci gudd loo silkili ci silkili ci wér nga ni mbagge mën ngaa ba gudd ni doj yi kon nag <coughs> jarut silkili ci jarut te doomu aadama war da réy ci kanam de doomu aadama njël beenam lan la ndoxam ma nii rek ku nekk féexlu ko mu jëm lan net bi ñu neb rek ku nekk féexlu ko ñu ko gën a bëgg ñooy gas suuf denc ko ca balaa nëb ci seen yoxo ci diggante bi fu mu toog ay toñalam yi ci biitam kooku ana lum reyloo eh? kullu zalika jëpp eh. ci loolee dara ma suma dañ tay atan di ay ñaaw en dara bi dafa borom sam matro di ci be. yooyu yëpp lu ci nekk lu yalla bañ la ñaar ci ko lo ak juróom fukki ñaan tëgg na ko tëgg ak tere fukki ak benn mu tëgg ko tëgg ak loolu mooy sariyaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo tax mu ne saalika loolee mimma awha aji naka la jële woyu na ko yàlla ilayka jëm ci yow a aji naka la jële woyu na ko ilayka bu jëriñ de wala taj an def ma la la yàlla ila an yàlla ram jëkkiroon nag moo ci gën a dëgër atum xaw saw def na sànni la ci jaanama ma la woon ngir mu ngay kuñ ma dafaram ngir mu ngay kuñ dàq ci yërmande ndax dana jagle leen rabbukum borom seen bi bari na ci doom yu góor wa taxasatam jàpp moom meen malaayikati ci malaaka inaa sama jigéen yéen doom yu góor rek xam ngeen doom yu góor man yàlla mi maye man ma na nekk la taquluna da ngeen wax xawlan wax na fi wul gi aji mag de wax rëy na lool de xanaa yàlla kay amul soxla ci doom waaye bu demoon bay xam doom itam xanaa doom ju góor la war a doon waaye doom ju jigéen jigéen bañ man moom ngeen may moomale wala xad sarraf naa num de seen danu fi asal quran di jila alquran képp ci léegi rek dana leen sa karoo ngir nañu waadu o maaye si duum doon di kul waxal law kaana donte nekkoon na maa waxan ak yàlla aariatuna yàlla kamaata xoloona naka ñuy wax gisan booba de daf taxaw kon dañu sàkku ila di la arsi jëm ci borom xaras sabiran yoon wu jëm ci xeex ak moom de yaari yàlla ya mënul am ni nga xam ne jenn jigéen mën da nekk diggante yaari jëkkër yaari jaasi mën da daje ci alam dek. mën da ci de mënul nekk su fekkoon geneen yàlla nekk fi lu weer wax xanaa kay du ñàkk bés mu meral yàlla ji fi nekk ñoom ñaar ñu xeex bu fi yaari yàlla nekkoon fokk yaari yàlla yooyu dinañu xeex bés buur yi àdduna yi fi nekk ci xeex lañ dëkk bon nag mosuloon a dégg ñu ne kan takk na xare jëm ci yàlla nag dafa amut geneen yàlla de su fi geneen yàlla newoon dana xeex ak yàlla de te su fi yeneen yàlla ne woon ba xeex ak yàlla xeex bi ñii rek lay mën a mujj benn ci gàñe ko wala ci ci gàñe morom wala kenn dana ci gàñe morom ma su ci kenn ma te ñoom ñëpp yàlla lañ suñ gàñe moom lott na lu jaadu ci rek jaadu na ca kem ba ca def kon yàlla ji ñu dàq tey ëllëg ci de ëllëg te ci def it mën naa am ëllëg ñu dàq ko rek bon yaari yàlla yëpp ñaar ñu yàlla boo nag yaari yàlla mënul xam de genn yàllaa fi nekk su fi yàlla yàlla newoon benn bi gën a jaam bi dafay toog gën a ci ne ko déedéet dafay gëm dem ci ne na yëngatu ci ne na dal ci ne na dund ci na dee ci na nelaw ci na yeew yooyu yëpp di ngeen ko gisit war ngeen a xam ne jenn yàlla fi nekk de subhaanahu wa ta'ala wa ta'ala tamu koy ama yaquluna ci lañuy wax ma lu gën a kawe kabiran bu dee aji màgg rek yusabbihu dana sabal la ñeel yàlla samawaatu asamaan yi saba ya di juróom yaar wala ak suuf wa oh, man fii naa ñu nekk ci ñoom rek yéen day yéenay sàkkal yàlla bokkaale ak di wax ci moom lu joxee lépp waaye mboolem asamaan yi juróom yaar ak suuf yi juróom yaar ak liñ lamboo ci mbindeer yi mooy ñu dëgg ne ñoo ngi lay sabbal seen borom rek ak di ko màggal mooy seen di wedd yàlla ak wax ci moom rek illaa sa saddu dara bi dana mu sabal bi am di ci cantam amul dara nag loo xam ne yàlla sàkk na ko lu mooy dafay sabalal yàlla walakin lu fi nekk laa taf xaw na dégg ci leen tasbiham ak sabal seen waaye yéen mënu leen a dégg sabal yëf yi de yëf yi nekk ci tudd yàlla la taxawee amul lu taxaw lu mooy ci tudd yàlla la taxaw ñaar duñ bokk benn tut benn tut du feeñ ci yaari yëf moo tax tudd yàlla yi dayo naka jëm yàlla jëm amul dayo tudd mu nekk nag mbindeef mu nekk nag ca tuddoom taxare kooka mooy sa baalam li la wan ne ñaar duñ bokk benn tut mooy wajjut ak doom doom lum nidu nidu wajjutam fokk ñu wuute ba bo len ci dara xamé len lu tax tur yi nekk ci ci ak wa nekk ci kala du ben yaari mbokk liñ ñu do ñu do fakk ñu wuté ba nga mën leena xamé ndax ci ñu feeñ ci kii ak ci wa kala kale hatta ñaari ci ci na sax booye boo rekk dendale fakk da nga gis lu ñu wuté de ndax ci ñu def sa jël ci bi da tepp ak ci wa def sa jëli jëbalee du ben nak lu nekk nak ci wam taxawee moo ak sabalam yéen nag mën leen a dégg làkk mbindee bi ci def foo dee buñ koy firi dañuy wax ne yàlla dafay bind ci ñoom rawa bañ sabal waaye loolu gudd na rek lëf lu nekk ma ngay dund ca dund ak yàlla ga te moom xam nañ nit ñi ñoo xamul bu ko jur bi daal su jootal mu ne lu yàlla bind xam na ma lu may ñu lu may way dëjërle ñu teg way dëjërle jinne rek nga ñoom a xamul walaa kenn du fi laa tas xawoona dégg di leen tas deewum sabal seen ina woon naka moom buur kaana ma suma dañ xalima nde aji ñi tam mbugal xafoora nde aji bay bakkaar rek way da xaraata dem jàng nga alquran alquran jaal naa nu def bay na ka diggante sa wa bay na ladina jab diggante ñaaña laa yooyu mu dina gëmuñu bi laaxara ci àlaxara ijaaban daay mastoran bi di aji sutural te daa ngi ni boo jàngee alxuraan yàlla def sutura sa digganteeg say noon de ña bëggoon a boom yonent ba ba ñëwee ba tiim ko gisuñ ko waaw yàlla wax loolu de wa naa def na noonu ala qulubihim ci seen ak ci ay muuraay aneef ko bu ñu déggal alxuraan de fi asaanihim ci nopp seen wax ran ak tax yow yow tudd nga rabbaka borom sa fil xuraan di wax dafa mbir maa ji wéet wala ñu dëdd ala adbaarihim ci di way daw nanu nun mu ñu yastamuna bu danañu déglu ilayka jëm ci yow way sum ba ba ñoom yaqulu ba wax salimuna way tooña in tatabiuna leen ngeen di topp yi daala jëlan dara waaye ma ji di ji yàqam kalam mooy Muhammad bul bul seetal kay fa dara boo naka ñu defe laka ñaala lam sala leen ye fa dalloo tañu réer falaa satena tañu sa bee yoon ngir ci nit waqaalo wax nañu ñoom way weddi dekk ne ay sàkku naa dem nekk nañu xesaaman di yàq waru faatante di way gunax inaanaka nun la ma moosona ñun dekkal la ñu xam-xam julli jadi tan gu dee aji xeer gannaaw buñu dee bay yàq yu funax yàlla mën nañoo buur ne xul waxal kóono nekk ren tijaaratan bi doj aw hadidan itam yooyu bi ñëw aw xam-xam itam bindee li ma yàcc bu nu da la gën a muree ci dool ci waaw su ngeen ne boo di doj ngeen ne boo di weñ ñuul lu rëy yéen nekk leen ko waaw yàlla faale wu leen di tere rek yàlla dana leen waaw dana leen dekkal waaw te dana leen hisaab de dafa yàqoo na xam nañoo wax man yone duna ah. ana ku dana mu dekkal nu de kul waxal la fii kaaka fatratin biñ nam leen wala maratin biñ leen benn yoon te nekku leen woon di dara te leen façon te nekku leen woon di dara moo leen di dekkal gannaaw bu ngeen dee de parce que yéen na ñoo yëngal i léy na dañu wax mataaw waana kañ bu mu nekkat xariban di aji jegey yow ma yaat xookum des moo woo leen ngeen tukkee ci seen i bàmmeel ngeen seen trafi du taxawee yéen yax yi sunof ne yéen eh yàq yàq eh yi ñëpp jëngaloo ci seen borom kenn du def galaw de parce que ji wala da ngeen wayu di am lii ci cantam di am lii ci ndigalam de keroog ñëpp ñëw waaw kum neex ak kum a sangeen di jortu waaw ayn la bisum yéen ngeen ilaa xaleen dara yi néere te keroog ngeen tiit ba ku nekk defe ne benn bés la am ci àddina waxul waxal leen baat yi ñeelay la tii waaw yàqoolo ñu wax ñeel yéefar ya allati baat ba nga xam ne di moom ah, a rafet dina seytaan naka seytaan yéen saxu dana mu na moom diggante seen illa seytaane naka seytaane kaana mosumoo dañ naa duwan ci noon mu gën a mu di gën a rëy insaani ñeel nit rabbukum borom seen baat bu rafet baa ngoo kat aalamu mu haaja xam bikum ci yéen in yeesal leen soob na mu yaram kum mu yaram bugal leen de waaw feefar loolu rek lañ ko yàlla ci loxol yalla nga nek bu ko neexee mu may la tu bu ko neexee mu halak la wa nga dem safara de wa ma ka yoni hum la alayhim ci ñu wàccee nga aji mënante leen de wa rabbuka borom sa alam ma ja xam man fit maa waati nga nek ci asamaani juróom yaar wala ci juróom yaar wala qad tadalna wala ay gënal nanu baada nabiyina na yonante ala baadin ci ñenn de ni ci yonante yalla musa Moussa wa yalla jagle ko wax ja Ibrahim yalla jagle ko xarit Muhammad yalla jagle ko rañan ma de waate na jox noonu daawore daawore sabóor sabóor daawore yalla wacc ci mom tere sabóor kon waxal udoo xooleen àll si na ñaaño saam tum na ngeen ay yàlla lañ mun doo ñuy dudud yàlla wala am di kona moom ci ñu kas sa dorri ma ñuy lor an kum wali seen wala tax yi ren bu